Derarı. alhamdulilah. mbokk yi sëriñ bi mu ne alhamdulilah. ko ci liñ ko santoon. ndax dañuy jënd weer wi dafa ko lu bari weer wi làmboo yu bari ndax yàlla nee na xeeti yàlla yi ndax yàlla nee na mboolem xeeti xeeti xeeti jëf bu nekk am na fayam. bu nekk am na fayam. ba mu des weeru koor weeru koor moom moo koy fay te moo koy fay ci kem baaxam. ba mu des weeru koor ndax yàlla moo ne weeru koor man maa koy fayal sama bopp. kon nag weeru koor dafa ñëw. kon nag weer bii dafa ñëw. di ndimbal. nekk ndimbal. ci mboolem mbindaakoon yi. ci mboolem mbindaakoon yi. rawatina jullit ñi. rawatina jullit ñi. ndax kii. lu nekk am na ngistal ba mu des weeru koor. ndax jëf ju ne am na ngistal ba mu des weeru koor. am na koo xam ne mën naa julli ci kanam nit ñi. am na koo xam ne mën naa julli ci kanam nit ñi. mën naa wax ca kaw ci kanam nit ñi. mën naa wax tamit ca kaw ca kanam nit ñi. waaye nag. waaye nag koor moom yow ak sa borom rek. koor moom yow nag ak sa borom. loo tax yonent bi ne siyaamu lii wa ana ajri bi. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne koor moom yàlla moo koy fayal boppam. moo lay fayal. moo lay fayal. bëri ci ci ci ci ci ci ay ngëneel. mooy mu indil tamit ci weeru koor woowu. mu indil leen bëri ci ay ngëneel. mu ne ku dogal ku weeru koor. mu ne ku dogal ku woor. yàlla dana ko nandal ca ca ndoxam ma nga xam ne ku ko naan mar dootu ca topp. yàlla dana la nandal ca ndoxam ma nga xam ne soo ca xasee mar di mar dootu ca topp. fekk dafa wax ne na ngeen dundale ci weeru koor. moo fekk yéen dafa wax ne na ngeen dundale ci weeru koor. am benn saxaaba bu jóg ne ko. duur ne kenn ku nekk ci ñun am na lu mu dundalee ñeneen. duur ne ku nekk ci ñun am na lu mu dundalee koor. mu ne yëfi duut ci bëri waaye ci ci ci ci topp ndigal bi rek la. mu ne ku naanal ku or nga guuxam ndox. mu ne ku naanal ku or nga guuxam ndox la. wala xariti tàndarma. wala xariti seel yàpp. wala seel yàpp. mu ne loolu. mu ne loolu. yàlla moom moo koy fayal boppam. yàlla mu ne jëf jooju moom moo koy fayal boppam. gi amul amul seen jaamu yàlla. matal seen ñu foog jeex na. su tax mu def loolu. waaye yonent bi tax mu def loolu. pour nit ñi tàmm. pour nit ñi taamu. weer wi nga ta nga tàggat sa bopp. weer wi nga tàggat ci sa bopp. aaye sa bopp lekk aaye sa bopp naan. aaye sa bopp lépp lekk aaye sa bopp naan aaye sa bopp lépp luy bànneexu àddina. lépp loo xam ne bànneexu àddina la. te kenn forcé wu la ci. te kenn forcé wu la ci. mais loolu tax moom moo koy fayal boppam. moo tax yàlla mu ne weer wii moom moo koy fayal boppam. weeru koor am na ay ngëneel yu bëri. weeru koor am na ay ngëneel yu bëri. alquran mi nga xam ne mooy suñu constitution ci la ci la wàcc. alquran mi nga xam ne mooy suñu constitution te ci la wàcc victoire bi lislaam njëkk a am. victoire bi lislaam njëkk a am. ci xare Badar. ci xare Badar. ci weeru koor la am. ci weeru koor bii la amee woon. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor. ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor. keroog xëy Quraysh ñoo jóg. guerre bu rëy. keroog Quraysh ñoo jóg ngir xeex xeexal lislaam xeex bu rëy. junne boo xam ne na junne boo xam ne su fekkee ne manqué na juróom fukk lay manqué. ni comme ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam waxee. bët bu set fukki gëlëm lañ daan lañ daan lañ ndawaloo. bët bu set eh, gëlëm lañ daan dawaloo ñu daal di bett yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di bett yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ñetti téeméer ak fukk ak ñett lañ fekk ñoom ñetti téeméer lañ ak fukk ak ñett ñoom jullit ñi ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñetti téeméer ak fukk ak ñett waaye waaye yàlla waxoon na kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira yàlla waxoon na kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bismillah mu ne kuréel su tuuti mu ne kuréel su ju dëggu. ju dëggu. not mbooloo mu bari te mbooloo mu bëri. waaye fekk ndigalal yàlla yi tamit. fekk nag yonent bi. bi mu jullee ba bi mu juddoo ba am ñeent fukki at. ba yàlla yónni ko. yàlla yónni ko. ñetti at yu njëkk yi. ñetti at yu njëkk yi. dana ko ool say say jegeñaale. ci ay mbokkam rek la ko yónni woon. ci ay mbokkam rek la ko yónni woon.

Makka dëkkam luuma la woon. Makka dëkkam luuma su gan ñi ñëwaan. gannaaw naagu na ci dëkk yi. naagu ci mbokk yi. kum gis topp la. ku gis topp la. di la wan lislaam. moom yéen ku gis topp la rek di wan lislaam. waaye soo demee ba bëgg a convaincre rek. waaye su demee ba bëgg laa convaincre rek. ñu mi mi ñu ngi ko toppal ay ndaw. am ay ndaw yu ko topp. ñu ne ko demal eh, demal dox si soxla. kii suñ suñ mbokk la yaram moom neexul mbokk loolu def na ci fukki at mu ne loolu moom yonentu def na ci fukki at fukki at yooyu ak ñett fukki at yooyu ak ñett mu oote ci lislaam ci Makka mu oote ci la ko topp matu téeméer la ko topp matu téeméeri nit mu jigéen ak yàlla ne ko nag demal ci ñi nga xam ne ñoo lay dimbale ñoom ñoo dimbale fekk am na lu mat ñetti at fekk am na lu am mat ñetti at

nañ yàlla jox ko ndigal yàlla jox ko ndigal ne bu fi fanaan ne ko màkk tey bu fi fanaan mu daal di dem ci jabalu xaaru nuur mu ne mu dem ci nuur ñetti fan mu nekk ci pax ma di nëbbu. mu nekk ca pax ma di nëbbu. ba se gisatuñ ko. ba gisatuñ ko. mu dox diggante Màkka ak Medina. mu dox diggante Màkka ak Medina. ci diire fukki fan. ci ba mu demee ba àgg. ba mu demee ba àgg. lim njëkk a def. mooy fa gëlëm nga njëkk a taxaw. mooy fa gëlëm nga njëkk a taxaw. mooy buntu jumaa ji. foofu mooy buntu jumaa mu dema bañ foog ne bañ foog ne dafay wàcc. mu demaat ba ci kanam. mu demaat daal di góoraat. daal di góoraan moom gëlëm ga daal di muur nag daal di muur yonent bi ne fiyey da fiyey dalwaay bi incha allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fii mooy dalwaay bi incha allahu ñu ne bu njëkk ba mooy jumaa ji ñu ne bu njëkk ba mooy jumaa ji bu bu ñaareel bi nag mooy këram bu ñaareel bi mooy këram te foofu lañ koy lañ ko rob te foofu yi tamit mooy mooy bàmmeelam loolu la gëlëm gi doon muur loolu la gëlëm gi doon muur lam ca teg mooy dafa dajale nit ñi boole leen lam ca teg moom yonent dafa dajale nit ñi boole leen ñuy benn kenn ku ne mu utal la mbokk ne la kenn ku nekk ci ñoom. am na ci ñoom ñoo xam sax ku amoon ñaari jabar da ngaa fase benn ba jox jox ko. am na ci ñoom ko sa mbokk yi amuñ dara lu ñuy def. waa daal di di ko song si. daal fekk dafa amoon njëggam bañ bañ leen dàqee foofu dañ fa bàyyi seeni i ak. fekk bi ñu leen dañ fa bàyyi woon seen i ak seen jabar sax ak seeni jabar sax. Zeynab bu muy taaw yonent bi. Zeynab bi muy taaw mi ko takkoon. Abul Aas mi ko takkoon. yonent bi oona ko ci lislaam mu bañ. yonent bi oona ko ci lislaam mu bañ. ba mujj gi sax dafa yónnee ñu ne nangul ko doomam. ba mujj gi yonent dafa mujj yónnee ñu nangul ko Zeynab bu doomam. ñoo ñëw song si yonent bi. ñooñu ñoo ñëw si yonent bi waaye. waaye fa mu toog di ñaan fa mu toog moom yonent di ñaan ne yàlla yow kuré su ndaw sii ne yow yàlla kuré su ndaw sii soo leen notee soo leen seetaanee ba ñu leen kenn dootu la jaamu ci kaw suuf yow yàlla ñii xiif nañ yow yàlla sa jaam yi ay xiif lañu leyal leen lexal leen mar nañ mar nañu naanal leen naanal leen mu ne ko sonu nañ mu ne ko sonu nañ may leen xetal leen di ñaan di ñaan moom yonantu ba kaala gi tegoon ci boppam bi ba kaala tegoon ci boppam bi daanu ci kaw mbaggam yi daanu ci kaw mbaggam yi aboubacar ñëw ne ko aboubacar ñëw bi doy na yonantu bi doy na sa borom du la seetaan mu ne mu ne ko anaam mu ne ko anaam Jibril la nga nele. Jibril la nga nele. ànd ak ñaari junne malaaka. ànd ak ñaari junne malaaka. Israafil la nga ànd ak junne. Israafil la nga ne ànd ak junne malaaka. Malakal Mawti ñëw nga ànd ak junne. Malakal Mawti nga ne ànd ak junne malaaka. su ko bàyyi daan netti ne way Quraysh. su ko bàyyi daan netti ne way Quraysh. waaye xal ak saa rek. waaye xal ak saa rek. ñu rey ci juróom-ñaar fukk jàpp ci juróom-ñaar. ñu rey ci waa Quraysh juróom-ñaar fukki jaam waaye tamit jàpp ci juróom-ñaar fukk. mu ne nañ dem ca Medina yëgal leen neneen mu ne waaye lañ dem ci biir Medina yëgal na leen neen nañ ñoo xam ne lim leen gënee rek mooy yonantu gi waaye jàpp nañ ñoo xam ne lim leen gënee rek mooy yonantu gi doon Abbas Abdul Mutalib ci la bokk ci la bokk ki nga xam ne moom mooy gorom itam Abal As jëkkër Zeynab ci di ci la bokk. foofu la lislaam jógee di taxaw nag. foofu la lislaam jógee di taxaw nag. ba ñëw ba taxaw ba ñëw ci ñun. ba ñëw di taxaw ba egsi ci ñun ci bii tey. yàlla may ñu ci cër bu léew. yàlla may ñu ci lislaam boobu cër bu léew. dëgg la màkk la juddoo. dëgg la moom yonentu màkk la juddoo. Tuburanke la fa nekkee woon. waaye Tuburanke la fa nekkee woon. Medina la nekk dëkkoon. waaye yahudi ak nasaraan fa woon di di ko sonal. waaye yahudi ak nasaraan yaa ngi fa di ko sonal. jéem nañ ko rey sax. jéem nañ ko sax. ñoo juri ñoo rey Yaxya. ñoo ñoo ñoo rey Yaxya. wax ne rey nañ Isa. ñoom ñoo tamit ne rey nañ Isa. waaye yàlla ne waxuñ dëgg yàlla reyuñ ko yàlla moo ko jël yëkkati. yàlla ne wax leen dëgg rey leen ko man maa ko jël yëkkati ko si sa yëpp ko sama bopp. ñoo doon bëgg a rey yonent yàlla Muhammad. ñoom tamit ñoo pexe lool pour bëgg a rey yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam waaye diine jooja. waaye diine jooja. mooy dox ba ñëw ba fii. mooy dox ba egg si ñun tey jii. dafa mel ni bi mu ñëwee ba Afrique dafa mel ni fii la dëkkuwaayam. dafa mel ni ba diine jooja ñëwee ba Afrique dafa mel ni fii rek mooy dëkkuwaayam. ñi gën a bëgg yonent bi li ñu gën a bëgg mooy dem aji màkka ñi bëgg gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu gën a bëgg mooy dem aji màkka waaye ku yaroo Sénégal jaar ci daara yi waaye ku yaroo Sénégal jaar ci daara yi jaar ci yar yi nga xam ne góor yi lislaam yeen ko yar jaar ci yar yi nga xam ne góor yi lislaam ñooñu ko yar soo demee doo fa gis ko éem waaye ñu waaye waaye waaye da nga leen di xeeb sax soo demee doo fa gis loo éem waaye da nga leen di xeeb sax ndax seen jëfin kon nag kon nag yonentu daana wax ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne dëkk bu ne jaasi laa ko ubbee dëkk bu nekk jaasi laa ko ubbee waaye Medina moom alquran rek moo ko ubbee waaye Medina moom alquran rek moo ko ubbee waaye mu ñu ñun waa Sénégal itam ñun waa Sénégal itam ñun ñun sowu jant ñun Afrique sowu jant ñun mën nañoo wax ne ñee ko juddule waaye ñun ñoo ko doon ñun ñoo wax nañ ne maamat ko ñoo juddule yonentu waaye Afrique bii ñoo doon yonentu sallallahu alayhi wa sallam juróom fukki mètre yo juróom fukki mètre yoo yoo jot juróom ñett juróom fukki mètre yoo natt góor yàlla liggéeyal na fa yàlla. góor yàlla liggéeyal na fa yàlla. loo xam ne Sénégal yëpp mën nañ cee fayu. moo téye Sénégal. yàgg nañoo teg dégg ay lakk. yàgg nañoo dañuy dañuy rayante. di ni ba jaahiliya loolu yëpp dañ koy dégg rek. Sénégal loolu loolu dañ koy dégg rek. yàlla buñ ko déggati sax. yàlla buñ ko déggati sax. Abdoulaye daana wax ne. Maam Xaaj Abdoulaye Niass daana wax ne. xay fekk yaa ngi koy dégg muccagoo ci. xay fekk xamut foo jëm da ngay dellu fa nga jógee nit daal su demee ba xamut fa jëm dafa war a fa mu bàyyee nañ dellu ci bindi lislaam yi. nañ dellu ci bindi lislaam nga xam ne moom la santaane. ñi nga xam ne moom la yàlla santaane. su boobaa su boobaa. yëpp dana mel na meloon. lépp dana mel na meloon. jafe-jafe yëpp. jafe-jafe yëpp. dañoo bàyyi alquran rek. dañoo bàyyi alquran rek. bàyyi sunna yonent bi. bàyyi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di wax ay démocratie di wax ak lu nekk ñu wax wax ko tuddee ko lu nekk mu tuddee ko ko waaye démocratie dëgg dëgg dëgg waaye sangi way ñëkk way mujj moo ko fi indi sangi way ñëkk way mujj moo ko fi indi xam ne juddoowu fa daf leen bokkale ba nga xam ne daf leen bokkale ba nga xam ne am na ñoo xam ne dañoo falsifie ku amoon ñaari jabar sax ñoo xam ne ku am ñaari jabar da fas kenn ki may ko sa ñoom ñëpp ñuy ànd di liggéey pour ànd ngir liggéeyal islam. moo tax moo tax. bëgg nañ ko foofu bëgg boo xam ne. suñ doon nettali rañaan mi. suñ doon nettali rañaan mi. ba ñëw ci ñeenteeli asamaan. ba ñëw ci ñeenteeli asamaan. fekk juróomeel kon. foofu lañ fekk daaw kii Idriss. foofu lañ lañ fekk Haaruna eh, foofu lañ fekk yéen yàlla Haaruna doomi bay taxi Moussa doomi bay taxu Moussa ñu gis ñu bëgg ko bëgg boo xam ne ñu gis ko ñu bëgg yonent lañ bëgg lañ bañoon waaye waaye Haaruna moom moom bëggoon nañ ko bi yonent ñëwee waaye bi ñu gis jikko rafet yi nekk ci moom ñu gis jikko xeewal gi mu indi ci nit ñi ak maandu gi nga xam ne moom ne santaane nit ku ni moom mosuñ ko bëggee moom mosuñ ko gisee moo tax ba mu demee foofa asamaanu moo tax mu demee asamaanu juróomeel fa la fekk maa ngi bisab tey bii suñ toogee mu ne bisab tey bii suñ fi toogee suñ xel dana daj Cheikh Mariam xaadimatul quran moo xam ne mi nga xam ne jigéen la jigéen la boo xam ne dafa ñëwoon sëy si fii rek comme jigéen boo xam ne dafa ñëwoon sëy si fii rek comme jigéen ñi néegam bi mu njëkk a dëkk néegam bi mu njëkk a dëkk moom la def daara ba kenn amul foo jaar moom la def daara ba kenn amul foo toog mujj gi mu boole ci perong ba ci mbedd mi mujj gi mu boole ci perong ba ca mbedd ma alaajo ma kan yàlla na yàlla yokk leeram alaajo ma kan yàlla na yàlla yokk leeram defar zaawiya zaawiya zaawiya boobu mu soppi ko école zaawiya boobu mu soppi ko école lu école boobu nag école boobu nag

baayam def ko teel a xam. baay radiyallahu anhu ko teel xam. mos naa am koo xam ne dafa jël defar benn carte sax defar fi doomi daf yu dafa am si doomi góor yi ak yoo jigéen ñi. mu ne moom nañ ko def ci góor ñi ndax moom góor la. moom Cheikh Amady mu ne nañ ko def ci góor ñi ndax moom góor la. ñu ne ko ah lu tax nga góor nga. ñu ne ko ah, yow lu tax nga góor nga. mu ne ci alquran sax. bi muy wax Mariama. bi muy wax Mariama. ni wax ji mu moom dafa waxak moom ci ne ne ne góor la. mu ne wax ji mu wax ak moom daf ko góoral waaye jigéen mu ko mu ne ko yaa Mariama uqnutii wasjudii ma'a raaki'iin. waxut raakaatu waaye raaki'iin. waxut wax. moom moo tax nag. moo tax nag. baayam daf ko daan soññu. baayam daf ko daan soññu moom Cheikh Ibrahim. moom ak ay rakkam ak ay magam moom ak ay ne ay yool banaatu zaaxim na ila ne yaa aywatul yaa laylil ola amma bil abdaani fala amma bi abdaanil fala na ngeen rëj rëjloog jigéen góor ñi yéen samay jigéen na ngeen rëj rëjloo ak góor ñi di leen ñoom ci lu nekk di leen njëkkalanteeg ñoom ci yaram nag mu ne bàyyi nee na wax rëj rëjloo yaram kon nag ñu ngi sant yàlla kon ci may googu yàlla may ñu kër gi fii ci Dakar bi fii ci Dakar. xalifa bi moom lay tàggu. xalifa bi su bëggee dara Dakar sax Cheikh Mamadou Lamine lay tàggu. gaar gaar mu tukki rek. gaar gaar mu tukki rek. bu tukkee nag ñun ñëpp ay jëw dinam nañ. su tukkee nag moom Cheikh Mamadou Lamine ñoom ñëpp ay jëw dinam nañ. kon nag ñu ngi ndokkeel. kon nag ñu ngi ndokkeel. di leen ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. ñun ñun. yàlla may nañu loo xam ne. yàlla may nañu loo xam ne. li alquran di wax ne su ngeen doon compte ngërëmaane yàlla yi wax su ngeen doon kont ngërëmaane yàlla yi xéewalu yàlla yi xéewalu yàlla yi mënu leen ko kon mënu leen dafa yomb moo tax dafa yomb moo tax ñu foog ne lu yomb la ñu waaye ku dem ci hôpital bi waaye ku dem ci hôpital bi koo ko ku dem ci prison bi wala ku dem ci prison bi xam ne balaa tàkkusaan ñu ne leen tëdd leen nga xam ne balaa tàkkusaan ñu ne leen tëdd leen wala nga dem ci armeel ya wala nga dem ci armeel ya nga xam ne ñoom waxuma nga xam ne dañ am benn liberté waaye suuf si nga xam ne yàlla am na lu mu la may nga xam ne yow mii di dox ci kaw suuf si am na lu yàlla may am ku ma daan tawatal am na ko man xawma lu ma fii def téeméer dee sax ma fii def yàlla nga loo xam ne mu ne ko moom sëriñ bi ne ko yàlla nga dencal xam ne sooyoo da nga xam ne sooyoo mu ne ma lan la mu ne ko lan mu ne ko ku la léegi ñu dagg sa loxo bi mu ne ko ku léegi nga dagg sa loxo bi jox la ñaar fukki million nga bañ kon waxtu ne yaa ngi am lu ëpp ñaar fukki million kon waxtu nekk yaa ngi doon millionnaire ci sa jëmm ji ci sa cër yëpp ci sa cër yëpp kon nag kon nag dafa laaj ñuy léeg-léeg ngay seet la yàlla may dafay laaj léeg-léeg nga seetlu sa yàlla may Baye daana wax ne Baye radiyallaahu daana wax ne ku bëgg ku bëgg sant yàlla ku seet ñi nga xam ne yaa leen xam ne yaa leen gënoo leen a muus yàlla te na leen lu leen may waaye yàlla may na leen leen may waaye lu la may may soo xoolee ca kaw waaye lu la may may soo xoolee ca kaw da xeeb loolu ndax may na jaam lu ëpp loolu da xeeb lu la may ndax may na jaam lu ëpp loolu ndokkeel suñu suñu doomi bàyyi. ñuy ndokkeel doomi bàyyi bi nekk Cheikh Abdourahmane ak Cheikh Sëñ Bay. di jiital Cheikh Abdourahmane. di jiital Cheikh Abdourahmane. mi nga xam ne moom. mi nga xam ne moom. ak Cheikh Aboubacar mii. ak Cheikh Aboubacar mii. ñoom ñoo séddale seen bopp Dakar. ñoom ñoo séddale seen bopp Dakar. su dara xewee mbir ne dañuy dem rek te ñëwaat. su dara xewee mbir ne dañuy dem rek te ñëwaat. waaw ñu ngi gërëm itam. ñu ngi gërëm itam. waa kër Cheikh Mariam. waa kër Cheikh Mariam yi. jiital ci. jiital ci bunu Omar ak Asi ni kër gi meloon ba léegi mu ko mel ni kër gi meloon ba léegi kër daa ko ko mel na mu ko mel na daara ji meloon ko loolu rek la ci bàyyi ci doomam loolu rek li tax bëggu doom yàlla jógee bañ di ko ut su fi du fi moom yàlla bañ koy ut waaye nit nag gannaaw da ngay da ngay dem waaye nag nit moom léeg-léeg fii ne léeg-léeg mënul ñàkk fene moo tax ngay fàgg ko xam ne soo demee bàyyi ko fi moo tax ngay fàgg koo xam ne soo demee bàyyi ko fi kon nag kon nag ñu ngi leen di jaaraamal ñu ngi leen di jaaraamal maa ngi gis suma kanam nii Cheikh Abdoulaye mu ngi gis Cheikh kanam nii Cheikh Abdoulaye Moussa Mamadou Lamine Cheikh Baba Lamine Moussa Baba Lamine nga xam ne moom itam mu xam ne moom itam ni mu fi tari alquran ci dëkk bii ni mu fi tari alquran ci dëkk bii suñ paajoon ñi tari ak ñi tareegul suñ paajoon ñi tari ak ñi tareegul ñi tari lënk lënk leen ñi tari lënk leen lam ko def ca Médina itam lam ko def ca Médina itam ca Nigeria ca Nigeria ca àddina bi yëpp ca àddina bi yëpp foofa dem da nga fekk koo xam ne foofa dem da nga fekk koo xam ne rek moom mi moo ko yor ci alquran gune yu ñu yaakaar la gune yu ñu yaakaar la alhamdulilah seen baay gërëm na leen seen baay gërëm nañ leen seen maam gërëm na leen seen maam gërëm nañ leen yàlla na ngërëmaane loolu sax yàlla na ngërëmaane loolu sax ñi ngi gërëm suñu mbokk taalibe yi ñi ngi gërëm seen mbokk taalibe yi ñi nga xam ne ñi nga xam ne mu ngi gis si Pape Demba mu ngi gis si Pape Demba bi tey directeur Sénélec mu ne Cheikh Mountakha Cheikh Abdou. mu ne Cheikh Mountakha Mountakha mu ngi toog di doomam mu ngi fi nii. mu ngi fii ci mbooloo mi. waxtu tawee dara tawee ci dëkk bi. waxtu dara tawee ci dëkk bi. média bi def ba àddina yëpp di ko dégg. média bi ni ñuy def ba àddina bi yëpp dégg ko. moom mooy jël xaalisam. moom mii di Cheikh Mountakha Mountakha mooy jël xaalisam. bernde yi ñuy def ci ci ci ci xewlu am ci Medina. bernde yi nga xam ne moom la ñuy jagleel xewlu mën a am ci Medina. moom moom moom moo koy def. moom Cheikh Mountakha mii moo koy jagoo jagoo. ak ñu koy jàppale. ak ñu koy jàppale ci liggéey bi. ku bëgg ñaanal bàyyi daal. ku bëgg ñaanal Baye Dado. na nga ñaanal avancement Medina. wala nga ñaanal avancement Medina. na nga ñaanal ñii. na nga ñaanal ndaw yii. ndax doom yoo xam ne lañ. ndax doom la yoo xam ne. Baye ju ne bëgg naa du. Baye ju ne bëgg naa doomu doom yii. ndax aw nañ ca yoon wa. ndax aw nañ ca yoon wa. ci fi mu war a yaroo. waaye yaroo yi tamit bi nga xam ne foofu lañ war a yaroo. ba muy jàng. ñëw dafa ñëw. fekk Medina amoon ay xew-xew yu bëri. sëñ Daara xew xew yu bëri. sëñ Daara bi xaar. sëñ Daara bi xaar. bi mu xaaree yàgg. bi lu yàgg. dégluwuñ ko moom mu dem. dégluwuñ ko moom mu dem. su su bi bi ñu demee ba di ko déglu ci kër Imaam Hassan. bi ñu demee ba di ko déglu ci kër Imaam Hassan. ko rek. damay war ko rek. taxaw nii indi ko ci ci ci garimaam. mu ne ma fukki fukki la ñuy tare wala fukk ak juróom. moo Abdoulaye mu taxaw ne ko fukk la ñuy tare wala juróom. wala fukk ak juróom wala fukk ak juróom. mu ne ko fukk ak juróom. mu ne ko fukk ak juróom. mu def ko. mu def ko te fekk mu doon ci terrain football bi. te suba bu ñëw mu ñëwaat defaat. te suba mu ñëwaat def taraat fukk ak juróom. te alxuraan jooju ma ma ma ko topp ba léegi. te alxuraan jooju mu ko topp moom mii ba léegi alhamdulilah. def na rajo ca Medina. def na rajo ca Medina. tuddee ko Baye FM. tuddee ko Baye FM. kon suma rajo bi du ma toxal kii bi ci moom postam bi du ko toxal mukk ndax feneen foo ko def ndax feneen foo ko def da dégg baay waaye da nga dégg leneen da dégg baay waaye da dégg leneen waaye loo yàgg yàgg yàgg waaye loo yàgg yàgg yàgg soo rajo bi sa nga dégg loo ko dégg soo doo jàppee rajo bi daal da dégg ci baay loo xam ne mosoo koy dégg kon ñii dañ leen di ñaanal kon nag ñii dañ leen di ñaanal ñi nga xam ne di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñëw fii. ñoo ñëw fii. bi ñu ñëw romb nañu ay daje yu bëri. bi ñu ñëw romb nañu ay daje yu bëri. waaye dañoo tànn. waaye ñoom dañoo tànn. mandargay Baay Ñas. mandargay Baay Ñas. moo tax ñu ñëw fii. moo tax ñu ñëw fii. suñu directeur Pape Demba. suñu directeur Sénégal Pape Demba bi tey. ak Pape Malick Ndour. ak Pape Malick Ndour. ak Pape Malick Ndour. Mamadou Ndaw. ak ak ak ak Momar Ndaw ak Momar Ndaw mi nga xam ne mooy doomu Cheikh Ndaw ak moom la nga xam ne mooy doomu Pa Cheikh Ndaw ak Baye Thiam procureur mi nga ak Baye Thiam ak Baye Thiam procureur ma kii itam dama ko gis waaye daan Serigne Mbaye Serigne Mbaye daaw Serigne Mbaye Thiam gis waaye daan la teew fii su amul ngànt rek dina dana amul soo soo ko gis rek amal na dafa ngànt moo tax ma ne ko yow muqaddam moo tax bi ma demee ma ne ma ne ko moo tax bi mu demee mu ne ko duut ne da fekkee la ci boole de. duut ne yow mbir mi fekkee la ci boole. yow da ngaa yàgg ñëw fii. yow da ngaa yàgg ñëw fii. doon xale bu tuuti ak sa baay. doon xale bu tuuti ak sa baay. sa baay ànd ak El Hadj Modou Seynabou. yow sa baay ànd ak El Hadj Modou Seynabou. doomam yëpp. doomam yëpp moom sëñ Mbaye Thiam. doomi maam Alaaji yi la ko tuddee. doomi maam Alaaji bàyyam doomi maam Alaaji yi la tudd maam Alaaji doomi maam Alaaji la tuddee doomam. tuddee sedd la moom la leen ñëw daf leen cee waaye ñoom lañ nekkoon mu ñëw daf leen cee waaye ñoom waa kër sëñ Mbaye Thiam. ñu ngi gërëm ñëpp. ñu ngi gërëm ñëpp. di wax ne nañ dellu. di wax ne nañ dellu. suñu valeur yi li tax ma di ko wax. suñu valeur yi lu tax ma di wax. nit li nga am soo ko comparé li nga amut. nit li nga am soo ko comparé ak li nga amut. da nga gën a téye li nga da nga gën a téye li nga yore Mawlana Cheikh Ibrahim Mawlana ci moom su askanu ci moom dem foo dem soo ko yëgee ak soo ko yëgul soo ko yëgee ak soo ko yëgul yëpp yaay sëriñ bi yaay sëriñ bi lu ñuy jiital yow la jiital lu ñuy mu ñuy laaj yow la koy laaj te itam yow yaay ambassadeur bi Cheikh Ibrahim te yow su boobaa yow yaay ambassadeur Cheikh Ibrahim foofu nga jëm ah, dafay wax ne arab dafay wax ne ndab lu nekk la ca nekk lay xëy ndab lu ne la ca nekk lay xëy lay sef ndabal Cheikh Ibrahim ndabal Cheikh Ibrahim nag dara nekku ci lu may dara nekku ci lu may xam-xam ak xam-xam ak sariya pour seen ak sariya alquran ak sariya alquran mooy mooy théorique bi alquran mooy théorique bi ay wax la ay wax la te ba muy wàcc boobu jàng xewut te ba muy wàcc boobu jàng xewut yonent bi sax dañ ne ko jàngal mën a jàngu ma doonu ma jàng sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko jàngal mën a jàngu ndax doonu jàng xamul jàng moo tax yàlla ci yërmandeem moo tax yàlla ci yërmandeem mu indi aw nit mu indi aw nit jël yonent bi jël yonent bi def ko mu jëmmi sharia lum def rek sharia la lu mu yonent bi def rek sharia noppi ci loo xam ne dañ koo aaye sañta noppi ci loo xam ne dañ koo aaye ba yu njëkk jàngut ba nga xam rek la ñu loolu yàlla mën nañu ci cër bu léew waaye loolu ñun yàlla mën nañu ci cër bu léew ku xam Mawlana Cheikh Ibrahim ku xam li mu wax ne isa saara xayru naasi surtout waraahum li mu saara xayru naasi surtout waraahum fu yonent bi tegg tànk ma teg tànk fu yonent bi tegg man ma teg sama tànk man Cheikh Ibrahim su fekkee ne taxaw na su ma dem mënut a suraan waade bàyyi soo ko firee ci olof soo ko firee ci olof bu dul alquran rek di xadis bu dul bu dul alquran rek di xadis ni muy jëfee ni muy jëfee suba ba ngoon suba ba ngoon mooy ni yonent bi di mooy ni yonent bi di ko jëfee rek na muy lekkee na muy lekkee na muy doxee na muy doxee na muy jëfee na muy jëfee yonent bi rek ngay gis yonent bi rek ngay gis sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi moo tax yonent bi deewul deewul ndax bi ñu jullee léegi bi ñuy sëlmalal. ndax bi ñu jullee léegi bi ñuy sëlmalal. bi ñuy taaya. ba ñuy taaya. ñun ñëpp nuyu nañ ko. ñun nag ñëpp nuyu nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nuyu boo xam ne mi ngi teew ci suñu kanam. nuyu boo xam ne néewooyee ku teew la ci sa kanam. kon nag loolu loolu kenn du ko def koo xam ne ku nekk ku fi nekk. loolu kenn du ko nuyoo koo xam ne nekkul fi. alhamdulilah bi ñu yàlla ma sànnalee yonent bi. kon nag alhamdulilah bi nga xam ne yàlla tànnal na yonent bi ci yonent yi. alhamdulilah bi nga xam ne yàlla yonent sedd na waa Sénégal ci ab ci ci. alhamdulilah bi nga xam ne yàlla si yonent bi sedd yàlla sedd na yonent

kon ñun kon nag. kon nag li ñu boole moo ëpp li ñu tàggat. ñoo bokk benn leader muy yonent yàlla ñoo bokk benn leader muy yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam. ñoo bokk benn constitution muy alquran karim. ñoo bokk benn constitution muy alquran karim. ñoo bokk benn hymne sunu muy laa ilaha illa ñoo bokk benn hymne muy laa ilaha illa allah. ñoo bokk fu ñuy jublu muy kaabatul musarraf. ñoo bokk tamit fu ñuy jublu muy kaabatul musarraf. ñii nga xam ne dañoo sori lislaam. ñii nga xam ne dañoo sori lislaam. xeex ko nañ ko te lislaam xeex rek moo ko jig te lislaam moom xeex rek ka ko jig yàlla mosu ko boole koy dimbale ko koy dimbale moo ko téyel boppam ndax yàlla moo téyel boppam lislaam bi ñu demee ba gis ne dañoo bëgg a nit ñi lislaam bañ demee ba nga xamee ne gis ne nit ñi bëgg nañ leen a sori dañoo indi yeneen pexe yoo xam ne dafay tax jullit ñi bàyyi seen dañoo indi yeneen pexe yoo xam ne day tax jullit ñi jàpp ñun nag gannaaw xamuñ fuñ jëm maa ngi yëngatu. naan ah. dana ñëw. guerre ñun amuñ ci dara lu ñuy perte. ñun guerre amuñ ci dara luñ ciy gañ wala luñ ciy perte. ñaari réewi réewi puissance ñooy xëccoo. amee su xew diina ku jóg jël sa doom mat ko. ku jóg jël sa doom ko. amul aw ci tànk yàlla dàq ay wi. dàq ay xam nga Amérique li ko mayoon doole. xam nga Amérique li ko mayoon doole. ba. yenn union yenn yenn réew yi di xeex. ba yenn réew yi di xeex ngir moom. France ak Angleterre rek. France ak Angleterre. ak Japon ñoom ñëpp ñu dajee. ak Japon ñoom ñëpp ñu dajee. dafa bàyyi bañ xeex ba néew doole. dafa bàyyi bañ xeex ba néew doole. mu àtte leen dese ngànnaayam. mu àtte leen te dese ngànnaayam. moo tax muy gérer àddina bi. moo tax moom Amérique pour seen mën a gérer àddina bi. moo tax eh, eh, union soviétique. mu ne moo tax mu ne union soviétique. moom itam bi mu demee gisee na ñàkkoon na ca booba. moom itam bi mu demee ba gis na ñàkkoon na ca booba. yëngatu bi yëpp pour dabal pour jotaat jotaat néeg yi du dara lu dul jotaat la mu am la mu bettoon yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nag mooy suñu leader mooy suñu leader Baye daana wax ne Baye daana wax ne Omar ibn Khattab Omar ibn Khattab am na diggante boo xam ne am na diggante boo xam ne xaajee àddina bi ñetti xaaj soo xaajee àddina bi ñetti xaaj benn benn xaaj bi yëpp moo ko doon benn xaaj bi yëpp moom Omar ibn Khattab moo ko doon atte te moom ki lu yoon santaane mu def rek kon tey ñoo dellu ca ndigle dénkaane ya ñoom suñ xeexee ba pare ñoom su alaku di ñoom ñooy alaku su alaku di ñoom ñuy xeex ñooy mucc di am ñun ñooy mucc su mucc di am dafa bëgg a xewaat rek xam ne kon lislaam dafa bëgg a xewaat ak doole rek ni ñuy bañante bañ noonu lislaam mooy seen noonu bu lislaam mooy seen noonu rek lislaam rek lañ bañ kon nag yàlla ñu yàlla xeer ci lislaam yàlla na ñu yàlla boole ci ñuy dundal diine islam yàlla na ñu yàlla boole ci ñuy dundal diine islam yàlla na yàlla gërëm yàlla na yàlla gërëm góor yàlla yi ji tool bi fii góor yàlla yi nga xam ne ñoo ji tool bi fii tool boobu moo nekk ca Touba tool boobu moo nekk ca Touba moo nekk ca Tiwaawan moo nekk tamit ca Tiwaawan moo nekk ca Njaasaan moo nekk tamit ca Njaasaan ay kër yoo xam ne ay kër la yoo xam ne ay tur yu uute waaye benn jëm ay tur la yu uute rek waaye benn jëm lañ ñoo bokk lu ñuy def ñoo bokk lu ñu bëgg ñoo bokk lu ñuy lu bañ yàlla nañu yàlla saxal yàlla nañu yàlla saxal ci loolu ñu ngi leen di indil nuyoo Cheikh Mouhamadul Mahi ñu ngi leen di indil nuyoo alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass loolu laa waroon a njëkkee loolu la waroon a njëkkee waaye dama ko mujjee ndax bu ko kenn fàtte ndax bu ko kenn fàtte eh, yàggu rek la ñëw ci tukki ndax bu yàggu rek la ñëw ci tukki waaye bis ba mu ñëwee ci omra ci guddi waaye bis bu ñu bisee omra ci guddi gi ci la sóob firi alquran ci la ñëw tamit dem delluwaat ci kon nag kon nag kooku nga xam ne loolu lay jël di ko def ci xoli nit ñi kooku nga xam ne alxuraan jooju la jël di ko def ci xoli nit ñi kooku nga xam ne utali baayam la utali baayam Mawlana Cheikh Ibrahim tànnalee ku mat ku mat moo ko mën a amee moo tax ku mu ko jox rek taal ñu ngi gërëm kenn ku nekk ñu ngi gërëm kenn ku nekk ci ñun di leen ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla di leen ñaanal